alors ni ñu ko defee tous les mercredis dañuy ñëw tey ci dossier bi nu mu ko waxee lépp nag ci rap lay doon nu mu ko waxee clash. Euh, essence am ci biir euh, rap bu Sénégal bu ñu demee ba ñenn ñi di wax ni que enterré nañ l'âge de guerre maanaam dootuñu clash seen morom lan la mën a indi ci biir euh, hip hop bi ñu bàyyi la rek tey moom affaire de jump la affaire de rap la ak moom seen te tey sax plateau bi macha allah dafa dafa kii bopp ba pare ndax xam nga këls bu fekkee moom day anime li nga xam ne moom mooy hip hop ak yeneen mm-hmm. yow nga newoon ci comme daf ma nekkoon dossier ci rab bi ba mu yaakaar naa tey war na. mën a de la matière quoi. na fi ayca. Mhm. j'ai de on rappelle qu'on est aujourd'hui le 2 novembre 2016 euh, alors euh, ci am jàngat wala ci constat ñu ngi toll ci trois trois cent septième jour de l'année maanaam on s'approche bientôt à la fin de l'année toll itam ci quarante quatrième semaine de l'année pour euh, rappel il y a eu des faits marquants. bokk na ci ak euh, Chine bi nga xamante ni euh, ñu ngi notifié euh, pour la première fois ñu introduire ay billets de banque ci seen dëkk en 1935 la Chine commencé fonctionner en billet de banque et un 2 novembre avant ñoom monnaie rek lañ daan lañ daan fonctionner mosuñu xam lan muy billet de banque le 2 novembre itam 2004 dañu réélire ki nga xamante ni moom moo di George Bush fële ca président su États-Unis yokkalaat ko yeneen 4 ans mu nekk vraiment le seul président bu nga xamante ni mandaawam jeexoon nañu yokkalaat ko yeneen quatre ans tout comme le 2 novembre aussi la ñu doon célébrer wala la ñuy célébrer à partir du 2 novembre 2004 toujours lañ commencé di célébrer journée mondiale de la protection des journalistes nag loolu nag mu ngi jugee ci benn fee bu nga xamante ni moom moo amoon fële ca euh, Mali ñu faatoon fa bakkanu ñaari journaliste looloo waral waa ONU ñoom di ko célébrer vraiment tous les 2 novembre li nga xamante ni moom moo di la journée mondiale de la protection des journalistes ñu jeexale moom la aussi leneen lu doy waar mu di la journée mondiale de du du fait de mourir en toute dignité maanaam képp ku nga xamante ni génn nga àdduna le 2 novembre ñu jàpp ni tu es mort en en en en dignité quoi tu étais un homme très digne mm. léegi nag ku bëgg a diñ rek demal tey du dëgg boo xaaree ba suba dootoo diñ man nag naa naa ñàkk diñ te dund waaw may bu may dem naa ñàkk diñ te dund gars yi bëgg nañ dem àjjana mais bëgg ñu dee quoi wala ah, dañu naa goree di te dund du ah, noonu ah. naa gore di te dund comme ku dee la dee diñ comme ku dee la dee diñ <laughs> en tout cas ku tëb bés bi gore woo. <laughs> DJ nañ nañ nañ ñëw ci lii ñuy waxtaanee tey du dëgg te génn sax ci waxi dee démb lañ doon célébrer moor yi na na euh, ñu ñëw ci l'essence du clash dans la musique urbaine Seynabou comme je l'ai annoncé tout ci ni nga xamante ni noonu la ñu nemmeekoo ni artiste rappeur yi ñoom dañu nekk di juboo ci seen biir beaucoup diront nag ni man euh, seytaane la bëgguma seen jàmm mais c'est pas le cas encore parce que tout le monde sait wala le clash a toujours été un très gros charme ci li nga xamante ni moom moo di hip hop ni muy xaajalee peut-être euh, fan ñi nga xamante ni ñoom ñoo ko seq c'est déjà quelque chose waaye itam ni muy euh, enthousiaste loo nit yi ñuy xaar son yi nga xamante ni xëy na ñoom moom la ñuy jaglanteel ci seen biir itam c'était un grand charme ci benn taxaw seetlu par rapport à ça nañ dem remonter un peu dans les décibels rek ñëwaat ci li nga xamante ne moom moo di plateau bi pour les discussions les commentaires clash ak rap nekk histoire bu nga xamante ni dafa yàgg loolu yëf yi sax tukkee fële ca États-Unis jamonoy Tupac ak ki nga xamante ni moom moo di Biggie loolu la ñuy woowee clash bokkoon na ci la gënoon valoriser seenub musique jamono di dox ba loolu nga xamante ni moom moo di clash yegg si fii ci Sénégal suñu ay rappeur nag daal di koy bëgg lool dem sax ba ñoom ci seen biir kenn ku nga xamante ni moom moo ci génnee son tant que clashul ka nga xamante ni moom laa mal problème du am jàmm yooyu la nag dem ba nekk la nga xamante nekkoon charme ci seen chanson ya nga xamante ni moom la ñu daan def ñi nga xamante ni ñoom ñoo demoon sax ba am ci ay problème yu sérieux bokk na ci nit dof ak kanabas euh, ñoom jamono yee ñu génn dañu doon clashante ba sax seen ay fan daal dee xaay jaloo jamono yi ñu toll itam ñu gis ki nga xamante ni moom moo di dundu dund gis noonu la nekk di dundee ak euh, beneen naataangoom buy wuyoo ci turu ngaaka blende seeni fans dem ba xaajaloo ñoom itam ñuy clashante euh, guddeeg bëccëg suba ngoon yemul génération bi ñoom ñëpp a koy clash bokk na ci bii bee la ak nga xamante moom la ñuy woowee Dollar rappeurs yi nag doon clashante mu neex loolu cinquième underground ñu ne mekk woon fii itam chanson bu mu génnee woon jagleel ko ki nga xamante ni moom moo ba Canabasse moomu la tontu benn chanson bu spécial dippee ko loo foog yooyu la nag demoon ba pratiquement nekk charme ci ob bi dafa mel ni bokkatul ca la nga xamante ni dorénavant dinañ ko nemmeeku ca seen musique ndax moom moomu la di nit dof ci benn concert bu mu doon amal ren ji tuddee ko show of the year dafa daal dee enterré la nga xamante ni moom moo di la hache de guerre ak ki nga xamante ni moom moo di Canabasse moom nit dof dem bay xam le ni sax àdduna dootul yàgg ba ñu dégg leen ci ay mbiri xiiroo ko ngaayoo noone la sax la ngaaka blende daal dee jël micro bi moom itam daal di xamle ni gannaaw ba ñoom ñooy seen i grand te bàyyi nañ lépp lu jëm ci wàllu xiiroo ak ŋaayoo moom itam dorénavant dina enterrer la hache de guerre ak ka nga xamante ni moom moo di créer beaucoup de suspicion ak beaucoup de débat ci la nga xamante ni moom moo di réseaux sociaux yi waaye itam ña nga xamante ni ñoom ñoo di seeni fan laaj bi nga xamante ni nag moom moo ci njëkk a bokk na ci ndax la nga xamante ni moom moo di clash bu génnee ci suñu mu meloon dina di clash bokkoon na ci li tax ñu daan gën gën a déglu musique boobu la di hip hop tey nag ci suñu dossier loolu la ñu fas yéene waxtaan ngir xool ndax clash bi bu fi jógee rab bi dina mën a dellu jëlaat place am ba mu jëloon wala dorénavant rab bi dafay mujjee nekk rek ego trip wala sax kaas li nga xamante ni moom moo di ñaxtu askan wi voilà Kals ñoo ko seetaanandoo un petit constat pour wane vraiment ni nga xamante ni noonu la rappeurs yi daan clashanté mm-hmm. askan wi itam daal di koy accueillir à bras ouverts maintenant euh, bu ñu bu ñu dindee clash ci ci ci hip hop est-ce que dina amati sens ba mu amoon bu ñu ko euh, yégalee encore euh, ci jamono yi peut-être euh, li ma fekkee man jamono yi Tupac jamono yi Biggie nii nii nii nii nii nii hip hop bi amee woon charme ba ñun ñu adopté ko maintenant est-ce que bu ñu enterré loolu noonu wala bu ñu ko ci seppee dina am son son charme daton bon man je dirais que amul dara wala wala lu muy sax peut-être yokk ci hip hop parce que. Euh, xam nga hip hop en général c'est c'est une culture comme ni ko gars yi di waxee et que euh, clash dafa bokk ci hip hop dafa bokk ci rab sa euh, date pas d'aujourd'hui aujourd'hui ci dossier bi certes da nga jël l'exemple de Nit Doff ak de Dip mais ça date depuis très super très longtemps mm. parce que yàgg na man yi sax du ma ko jàppee tellement clash lu tax parce que on se rappelle de frère ennemi bi ñu defoon entre Bibson ak ak ak euh, le grand Xuman loolu man laay jëlee benn clash quelque part mais bu très positif parce que c'était euh, un projet bu ñu tegoon boole ñaari MC yu jóge ci ñaari crew yu différent euh, clash dafa bokk ci charme hip hop mais c'est pas quelque chose de négatif parce que lu ci bokk la mi ngi mel ni tey man ak Books ñu nekk ci même milieu mu am lu muy doxalee noo xam ne neexuma ma koy dénoncer clash ne veut pas dire saaga Books ni dof Euh, saaga euh, plutôt euh, saaga nday books wala ma tudd naka sudul noonu ci moom clash ci sens bi ma koy jëlee man en tant parce que hip hop dafa yaatu ay chaque a réalité ak ay culture am ñun Sénégal quel que soit alpha dañu adopté le hip hop mais dañu am suñu ay réalité ak suñu ay culture tey quand tu vois quelqu'un moo fi toog il faut ma wax ko Books buy rappé da ngay xam ni ça c'est made Sénégal avec son style ak ni muy développé suñuy def clash aussi dañ koy adopté selon suñu ay réalité euh, benn américain il pour se permettre de saaga carrément ndey wala wax lu ko neex benn collègue euh, euh, collègue gu euh, rappeur am mais aujourd'hui man je me permets pas benn rappeur jël saaga Books Ndeye ñoo jox ma ko ma mettre ko sur la dans sur sama émission au niveau de la RFM du ma ko def sama éthique mayu ma ko et bokk ci sama ligne éditoriale pour may teg lu mel noonu donc dañu am suñu ay réalité mais hip hop il faut l'accepter euh, un exemple nit dof Canabas dafa dem ba yegg au delà du clash bi kese dafa dem ba nekk lu personnel. Mm-hmm. ñoom ñaar ñoo waxtaan. nit doxul seen diggante ak ñoom seen Nitdoff qui a pris son téléphone ñoom ñaar ñu déggante téléphone waxtaan bi Canabasse di dem kër Nitdoff kenn yëgu ko ci réseau sociaux yi lañ ko gis bi Canabasse di ñëw Grand Théâtre ak Iba Mar ñun même en tant que organisateur yëguñu ko donc dafa dem ba weesu li nga xam ne mooy aspect hip hop bi rek mais c'était plutôt personnel. est-ce que yaa ngi may dégg aujourd'hui on a vu d'autres exemples à l'époque yoo xam ne dañu clashante après dañu bokk ay projet wala dañu bokk ay scène yaayu Bibson et autres Bibson ñu mu ku mu clashul fii Sénégal amul ci ay rappeur et après à un moment donné partagé nañu ay scène parce que ni ñu doon doxalee noonu la accepté lu loolu la accepté wul Bibson clash na fi Fata à l'époque Fata def na émission bi loolu weesoo ñu partagé émission waxtaan ñoom ñaar parce que il a dénoncé li Fata doon def en tant que artiste en tant que rappeur ne lii du hip hop deful hip hop lii lay def lii lay def et bi loolu weesoo ñu nekk ay mag ñoom ñaar parce que c'était pas personnel donc clash pour man bu ñu ko tegee rek ci cadre bi ñu ko war a teg mooy Books lii muy def ànduma ci en tant que rappeur ma wax ko ñu yamale foofu mais bu ma bëggee dugg ci vie bëgg dugg ci euh, doxalinam bëgg koo saaga sa devient personnel mais bu ñu respecté rek normes yi nga xam ne mooy clash dénoncé li muy def ñàkk ànd ci am ñàkk ànd ci doxalinam foofu mun nañ ko accepté man tey soo ma joxee benn clash boo xam ne rek ma naan Bouks li muy def du rap wala euh, texte bi mu bind euh, d'accorduma ci wala li mu def du nii dama koy teg mais soo ma andilee boo xam ne da ngay saaga books c' est personnel da wax waa këram da ngay wax doomam da ngay wax njabootam dama naan la yow da am règlement de compte booy régler et c' est pas à moi de te donner cette opportunité pour nga saaga ko wala nga wax ko naka su dul noonu. donc buñ ko tegee ci yoon rek y aura pas de problème. est défini comme une musique de de est-ce que li ngay wax nii maanaam mu dugg ci këram mu dugg ci njabootam ak li ko war est-ce que du loolu mooy mooy le hip hop. je sais pas si je me fais comprendre est-ce que loolu itam bu ñu ko ci génnee carrément. Euh, du nekk rek waaw justement dina neex. non dina neex déjà. parce que parce que dernièrement il y a une chanson bu nga xamante ni su ma juumul le gars yi s'appelle Bi baleur Bay Bay Bell. Mhm. Euh, bu euh, bu clash sévèrement wala bu tacle sévèrement ki nga xamante ni moom moo di Dip Doundou Guiss mhm. mais ça a fait un tabac. da ngay romb ci ay koñ gis xale yi di ko déglu di béggee di kona parce que kontaan nañ ci ni nga xamante ne noonu la doon la doon la doon la doon tacler wala noonu la doon tensé di maintenant loolu yëpp bu ngeen ko ci dindee rek est-ce que du du ngeen ko yiwal ba moom. non mënul ñàkk neex xam nga hip hop déjà naturellement peut-être ñun ñu si nekk dafa neex parce que quand tu prends l'album de de Nidoff qui est roi d'Afrique wala un album de Books qui est Dara du doy y a yoo xam ne da lay da lay pas da lay yee. Hmm. mais da lay day wax ak yow qui te parle. Euh, hip hop déjà neex na naturellement classe boobu xorom xorom la ci woon rek xam nga le gars que tu as dit tout à l'heure muy Biba Biba la je sais pas. man personnellement mosuma ko teg j'ai écouté le son parce que comme ni nga ko waxee def na tabac nit ñi déglu nañ ko mais c'était pas passable à la radio il y a quelque chose qui est passable. et certaines choses ne sont pas passables à la rajo man personnellement duma ko jàllale bi ma ko dégloo xam naa ni lii lu personnel la jàllale wu ma ko li ngay wax nii c'est-à-dire benn image la ak lu ñu étiqueté du ñu jël taf ko ci rappeurs yi way c'est une musique de violence euh, gars yi dañuy saagante rek da ngay gis rappeur sax nga ah rappeur bi leen déglu parce que dañuy saaga rek alors que y a am na liggéey boo gis ci àddina am na ñu koy teg ci yoon man je sais personnellement que aujourd'hui y a certains il se permet pas de dire du n'importe quoi xam naa leen xam boo xam ne ko bëggoon régler ils sont tellement matures et ay kilifa la ñu tey amuñu droit wu wax du n'importe quoi ñenn ñi nag peut-être bëgg nañu bës bi wala am na nu ñuy doxalee mën nañu saaga mën nañu wax parce que dañ naan rab booy wax jaaral ci dëgg bi dëgg la musique dëgg la mais musique dëgg la boo xam ne dañ koy wormaal dañ koy soigner dañ koy defar ba mu rafet dëgg mën na neex mën na rafet mais du pas parce que ni nga ko xalaatee rek nga koy waxee donc liggéey boo gis ci àdduna muy journalisme bi muy animation et cetera ku ci nekk ak ni ngay véhiculer say message ak ni nga koy defee mën nga ko teg ci yoon comme mën nga ko bañ a teg ci yoon mais en général daal clash lu positif la et lu bokk ci hip hop la duñ ko xalaat nag duñ ne noo bokk ci si ci la bokk mais dafa am nu ñu koy defee. d' accord mais euh, euh, Kals est ce que euh, rappeurs yi fi nekk tamit à ce rythme du ñu soppi rap bi seenu bu Pape Diouf wala bu Waly parce que bu bu bu fekkente ni Canabasse ak Nit Dof yi se sont réconciliés maa ngi gis ci réseaux sociaux yi. encore une fois je n'ai contre la réconciliation <laughs> mais maa ngi gis ci réseaux sociaux yi ku nekk di seedeel sa moroom lu baax. Euh, nga gestu gis nga ak Blindé mi fi toogoon moom itam <laughs> wax leneen dem yéeg fële ah. euh, seedeel diib lu baax bu subaa est-ce que du ñu ñëw ku ne di tagg moroomam mais mais mais mais loolu loolu est-ce que du seeni fan vis-à-vis de seeni fan da gis boo duggee ci yenn ci ay koñ fan su diib yi ak fan su ngaake yi bu ñu bu ñu toogee di wax rek c'est c'est autre chose c'est de l'art je sais pas si je me fais comprendre. mais lu baax loolu maintenant loolu bu disparaître bu ñu bokkee sax son ku ne eh, eh, di di waxal sa morom. c'est li ngeen ko bëgg a jàppee excuse-moi je je je li ngeen ko bëgg a jàppee mooy affaire bi nay dëgër rek. Ah, <laughs> c'est ça le justement. c'est pas ça le non mais mais mais bokk na ci critère. du ma ne c'est pas ça le mais bokk na ci charme boole ci charme yi mais non non mais c'est pas ça le hip hop. hip hop xam nga lu ko tax a jóg yaa booy ak rap en général parce que branche la rek ci hip wax lu rafet dénoncer. éduquer ak gunge et aujourd'hui vraiment évolué de telle sorte que nekkatuñ fi sax parce que fii ñëpp a yeewu dañuy waxante dëgg rek tey jii nii buñ la naxee rek daf laa neex donc on est arrivé à niveau boo xam ne nag wax dëgg yàlla dafa war a neex mën nañu éduquer mën nañu yeete mais dafa war a neex mais ay nit lañ hormis lépp ay nit lañu war nañ mën a waxante lu baax aujourd'hui j'ai dénoncé saa au niveau de la radio ak yeneen confrères yu ko def euh, la presse écrite ou même peut-être bon je dirais vous parce que yéenay jàllale tout ce qui est people euh, si nit daf aujourd'hui taxaw ci télé bi bu max benn canabas wala ci benn scène wala Bouks saaga kenn ce sera vraiment médiatisé et super médiatisé mais tey Bouks bu taxawee wax lu rafet ci euh, benn Simon wala mu wax ko ci benn peut-être un un autre artiste comme Ngaaka Blindé wala Dip Doundou Guiss boo koy jàllale boo ko bëggee jàllale sax du jàll. et on te dira que le le train qui arrive à l'heure ne nous intéresse. mais, mais on sait mais quand même il faut toujours. mais mais même bu dul la c'est vrai parce que journaliste yi ñooy wax loolu d'habitude. non mais bu ngeen ci ñi nga xamante ni vraiment yéen a yéen a yéen a seen seen seen yéen a fësal xam nga mbalaxmaan yi. Mhm. Euh, tu man et Nabou on ne se kiffe pas mais devant tout le monde force dañuy bëggante. Mhm. maintenant yéen bu ngeen wanee Sénégalais yi mais vous ne vous aimez bokk na euh, au sens du mot mais euh, sur le plan professionnel euh, dernièrement bi Booba génnee tàkkale leen sévèrement devant au vu et sur de tout le monde euh, bëri na ci ay rappeurs yu nga xamante ne dañoo génn ànd ak Booba ñenn ñi génn di di wone carrément seen frustration par rapport ak lan moo tax rappeurs yéen a ànd ak bu baax dem ci sax bay wax ni euh, euh, hypocrite yi seen masque tombé na xam nga yooyu euh, mënoon ngeen ko def d'une manière déguisée maintenant presse bi foofu lay focaliser wu parce que loolu ngeen gën a fësal loolu ngeen wone une liberté dans le hip hop cest à on est tellement libre de telle sorte que hip hop y a des yoo xam ne ci biir dañu xam nga hip hop rek moo am wax sa xalaat te doo ci discuter ak nit tey rappeurs par exemple bu doon balaxmaan yi tooñu ma ko mais un membre góor peut discuter avec un Pape Diouf ci benn sujet euh, ñu tombé ci d'accord pour wax dala mais tey jii nii sujet bu baax bi mu génnee ku ci nekk da nga génne lu nekk sa xol parce que dañu laal li nga moom le hip hop galsen aujourd'hui c'est une fierté pour nous tous dañu ko bëgg te dafa nekk ak ñun ku ci nekk tu es issu d'une famille yaa ngi ci benn liggéey yaa ngi évoluer sur quelque chose mais le hip hop je dirais pas que euh, parce que c'est ça va être trop la wala dañ ko gëm tellement mais fii rappeur boo gis Sénégal muy rap hormis euh, euh, li mu ko def en tant que liggéey y a la passion d'abord kii mën na ma seede ci loolu avant muy nekk quelque chose de professionnel ils sont devenus tous des professionnels aujourd'hui mais avant loolu y a y a ce qu'on appelle la passion d'abord dañ ko bëggoon di ko dund di ko déglu di ci nekk pendant des années kii ba muy rap c'était yàgg na ci ay at c'était à l'époque depuis. seen kooku ak yaa ngi xalamal Books bon <laughs> non xalamalu ma la xa c'est je prends l'exemple sur Books parce que moom moo jàkkaar jàkkaarloo ak man. est-ce que yaa ngi comprendre. Mm. donc yéen li may bëgg a wax foofu ci tënk rek mooy. li leen ci gën a intéressé yéen ñu nekkul ci culture urbaine bi mooy suñu ay saaga ak suñu ay xuloo je dis la vérité nag sincèrement mm-hmm. des fois dama leen di clash lu bëri même au niveau de Futurs Médias dama leen koy wax mm-hmm. li leen gën a intéressé ci rab bi mooy saaga nañu dóor nañu xas nañu wax nañu diw da nga naan rappeurs yi sax ñu ne dañoo bëri saaga yéen da ngeen a bëri histoire fu ngeen nekk kaas ngeen di def lu mm-hmm. ma dem concert rap parce que y de insécurité bi dafay bëri agression alors que c'est pas ça c'est plus ça non c'est du lu musul nekk loolu. Kalz <laughs> euh, tamit. non on est au Sénégal on n'a pas euh, bi nga xamante ni moom la rappeurs yi amoon léegi sax la ñu commencé gis ay rappeurs yu nga xamante ni seen musique mu ngi exporté wu à l'image de euh, Daara te ñoom la leen ko may sax gospel la foo qu'on se regarde droit dans les yeux ñu waxante. xamante ni li nga xamante ni moom moo fi nekk may ma may ma ñëw problème Booba bi amee man dama def benn plateau. répondre ma Booba waxuma ni kaay leen ci Booba xam nga la laa def. j'ai appelé quelqu'un comme Awadi j'ai appelé quelqu'un comme Bidé Boubès j'ai appelé quelqu'un comme euh, Ndongo Dida Daradji pour wax ni que le hip hop galsen aujourd'hui vingt 25 ans et ci 25 ans yooyu noonu on ay eu de ndam bu bees andi nañ fi disque d'or à l'époque ils ont fait presque le tour du monde avec Passy ji ils ont Booba Ndongo en personne i me l'a dit a fait la première partie aux États-Unis de Daradji à l'époque mm -hmm. Booba Awadi, il fait minimum, il me l'a dit, 160 dates pendant l'année, un peu partout dans le monde. dis-moi ban musique Sénégal fii moo ko fi def. daara ji bu demee du musique bi ngeen di def moom moo ko demal nañ nañ. hip hop la ñuy def ko waxtaan eh, d'accord mais. gospel journée ku ne xam na ni. c'est ku ne xam na ni c'est c'est très différent. du genre bi nga xamante ni moom moo fi am. mais c'est récent d'accord même si c'est récent. daara ji xëy na euh, euh, non non ñeneen ñi déggate ak Awadi nuñ tuddati. positif Black Soul par exemple bi ñuy jamono yi ñuy yëngal pratiquement ay ay ay ay seen euh, yu yu yu yu dul seen yi fi ne mhm. euh, da nga da boo ko seetaanee retro yaa ngi euh, Google wala YouTube xam nga fii léegi kenn mënatul solomal sa moroom parce que mhm. archive yaa ngi fi mhm. la ñu daan def fi cap si di di wàccetu yi bu ñu demee fële dañuy indi mode africaine def leneen lu nga xam te ni c'est différent li fi ne maintenant benn books bu woy du ñu ak yéen waa kër gi di woy jugu fi est-ce loolu moom ngeen di jaay suñu tubaab yi ba ñu reconnaître suñu faut mu am benn lecture bu positive bu ñu bëggee avancer personne n'a prouvé ce qu'il a fait mais quand même il faut que ngeen xam ni euh, du ñu nag bandi chef d'état xaw ma lan do ni nga yendoo di ko yeewoo xam nga euh, loolu c'est ici. pour yow du loolu mooy jaay au niveau international dama lay jox benn exemple même fii Sénégal ah tey boo jëlee bourse ne ko kaañ dem maatam je sais qu'il va changer conducteur am boo jëlee bourse ne ko kaañ dem conducteur am bu dee Dakar la ñu ñëwal Boy Town show le 5 il va dem ci àddina bi. am na noo fa war a présenté woo aujourd'hui euh, Nike lu marque bi dafa signé euh, benn benn benn dafa signé ak seen kumpa à l'époque su ma juumul ban année la woon en 2007 en 2007 pourtant personne n'en parle personne n'en parle Bidé bu bees am nañ fi disque d'or ils ont pris un animateur qui s'appelle Olubi je travaille avec lui actuellement il a fait le tour du monde en tant qu'animateur hip-hop avec Passy c'est-à-dire am nañu lu bëri tey mbalax bi nañuy waxtaan clashuma leen ah. à part le big boss qui est Youssou à part Baba Mal à part peut-être euh, Ismaïla Lo fan la ñuy taxaw de yaay booy doo sori doo sori il est hypopte aujourd'hui kër gi il fait le tour du monde Japon Chine en 2015 en 2014 mm. avec ce même album encyclopédie mm. ils ont fait Chine Japon Belgique Danemark etc il tourne Simon il a fait avec Maison de Cultures Urbaines aux États-Unis pendant un mois Amadou Fall Ba des représentants ils sont un peu partout en, dans le monde leen yóbbu et représentent le hip-hop. d'accord euh, peut-être amuñu couverture moo tax nit ñi duñ ko xam. Kal ma ko mayal mayal mayal books ma ñëw. <laughs> damay seetaan ah, damay seetaan non foog nga foog nga de choses à nañ bàyyi books moom mu mu joxe ci point de vue am par rapport ak li mu fi jot a. waaw je pense que Kals il a tout dit ah. parce que mënatuñu résumé waat wala waxaat déjà ci hip bi depuis histoire am mu yegg si fii. Euh, li ci am yëpp on était tous d' abord témoins voilà que ki accepté ki accepté wul ñëpp ah. c' est vrai que musique bi dem na ba yegg foo xamante ne am na ñoo xamante ne tey ay thème moo leen siwal ba tax ñëpp xam leen woy seen yaay wala woy seen papa wala woy soxna yi. Uh-huh. am na ñoo xamante ne ego trip moo tax ñëpp respecté leen. am na ñoo xamante ne aussi Sénégal qu'on le dise ou pas. woon du leen respecté kenn du leen xam du ñu am benn tour lépp ay technique de communication la souvent li ci gën a graaw mooy. quand tu vois certains rapports ou certains artistes ci télé bi tu vois que c'est des assassins au fait euh, te koo ci toogal léegi-léegi buy wax ak yow du sax sigi xool la mm-hmm. et tu loolu moo ci gën a intéressant mooy que bu ñu xool parfois jàppee artiste bi ci tempérament am ak discours ak nu muy waxee mm-hmm. tu sais euh, wax bu jub yàlla mayu ko ñëpp mm-hmm. correct yàlla mayu ko ñëpp mais am na ñoo xamante ne bu ñuy dox rek ci seen doxin rek mën nga leen naw même boo leen xamul am na ñoo xamante ne lu seen musique rafet bu ñu waxee rek nga jéppi leen voilà moo tax c'est la jeunesse te ay génération par génération la parce que chaque génération da nga gis olof day changé nit ki léeg-léeg na la bëgg wax lu baax sax juum waxee safaan wa mu mel ni comme si dala saaga parce que ça change olof bi mu ngi changé bu baax a baax ni man ñi daan waxee wala à l'ancienne buñ ci delloo ñu bëri dinañ déggoo ci ay affaires tey histoire de clash ego trip qu'on le ñun dafa jiitu sax suñu hip hop ci histoire hip hop la fekk mais amul clash bu gën a sérieux tey clash bi Biggie ak Tupac je pense que loolu dem na ba am ay mort mm-hmm. et tey aujourd'hui bu ñu demee ba xam c'est quoi biif c'est quoi clash c'est quoi ego trip mm-hmm. réalité yooyu yëpp dafa am fu mu jugee te dëkk boo dem rek am na safaan am na lu baax léegi lépp solo mooy ak par rapport ak sunu lang mooy lu tax yenn clash yi xaaw sévère au Sénégal mm-hmm. mooy que ñu ci bëri musique américaine la ñuy jëlaat en général traduire ko en wala jalaat musique français yi traduire ko en wolof te littéralement am na yenn mot wala yenn phrase yoo xamante ne en anglais boo ko traduire en wolof rek mag ñi mun nañ ko bañ a déglu même sa génération sax mun nañ ko bañ déglu mais li ëpp solo ci biir loolu yëpp mooy avancement bi ak liggéey bi ak après li ci gën a intéressant mooy que bu ñu focus trop xam Sénégal moom c'est dommage c'est un pays de polémique mm-hmm. mooy ci peux travailler sérieux pendant des années ci benn affaire doo ma a dégg kenn ku ci wax wala ku jéem a essayer pour sol loolu wala pour promouvoir ko mu jóg mais une fois ci sa carrière nga juum ci sa moroom artiste wala nga juum ci sa carrière ça va faire tour du monde mm-hmm. ça va faire tour du monde oh, loolu c'est très dangereux nekkul ci musique bi kese da nga koy fekk ci sport bi danga koy fekk ci politique bi danga nga koy fekk même yéen ba ci seen télé bi wala rajo bi ñu nekk nii. ça fait pendant des années seen liggéey mooy que joxe ay bataaxal. wax réew mi la moo xew ci ruq-ruqaan yooyu noonu mais ñenn arrangé wu leen ngeen di dem ci yenn ruq-ruqaan yi di génne yenn détails wala yenn problème yi fay nekk. Mm-hmm. loolu la nit ñi di gën a focus wala ci loolu la nit ñi di di di gën a concentré wala di ci wax wala muy def ay di créer ay polémiques yu dul jeex ci àdduna bi. Mm-hmm. mais lépp solo ci biir yëpp mooy que. nañu xool fan la hip hop bi jugee woon démb ak fan la toll tey ndax changement am na wala amul. je pense que rappeurs yi màgg nañu ay kilifa lañu comme Kalzun mu ko waxee. ñenn ñi am nañu ay jabar ñeen ñi am nañu ay doom am na ñoo xamante ne tey boo leen laajoon daaw ñan ak ñan ñoo amoon problème wala ñoo amoon biif nañu waat si mënuñu cité waat encore nooy wala problème yi. problème yi yenn détails yu bëri ci ay concert lay yem wala ay musique mais gars yi ñooy bokkaat ñu ci bëri quoi. pas pas tout le monde mais ñu ci bëri tey ñooy bokkaat même jotaay yi ñuy toog di naan ataaya même jotaay yi ñuy toog di waxtaan même jotaay yi ñuy toog di di di di Kals on se Kals ba ma xam boobu succès ñëwagul moom nekkagul animateur bu nit ñi xam man période boobu amagu moon amagu moon album da doon def stage euh, euh, euh, RFM da doon jóge foofu anytime di ñëw sama kër di ma seet si man ak sama grand frère Bouba Jolof mosuñu woon xalaat ne jamono dina dox parce que humainement parlant y a quelque chose de beau loo xamante ne moo gën a neex musique loo xamante ne moo gën a sérieux musique loo xamante ne moo gën a rafet que li nga xamante ne tey moo tax àdduna bi wala askan bi xam ñu wala naw ñu nañu liggéey nañu liggéey waa ñu wax ju bari mm-hmm. ju bari que aujourd'hui qu'on le vole ou pas artistes yi ñoo ngi tuddante ay doom seen biir pourquoi gars yi duñ ko wax. Mhm. Ah, artistes yi tey booy ngénte tey bu Simon di ngénte wala keneen di ngénte wala di mariage mais ñun nga fay fekkaat. Mhm. pourquoi duñ ko médiatiser mais Books am na problème ak Kals sa va faire tour Sénégal dina def tour monde bi tu vois. voilà mënu ci ñàkk nag xam nga c'est c'est un peu compliqué pour moi même que ma ci ma ci ci sori wala di ci wax trop parce que je suis un boo ne peut-être nga xamante ne loolu ñu hip hop njëkk a loolu laa njëkkee mooy peace love je pense que ñëpp bu ñu njëkkee woon ci peace love and respect y aura pas de beef y aura pas de clash y aura pas de problème même bu dee mbalax ngay def même bu dee reggae ngay def même bu dee zouk ngay def li ëpp solo ci biir loolu yëpp mooy qu'on se respecte si on se respecte rek y aura du love mm-hmm. te ku ci nekk di nga xam ne lii yow yaa ko moom lii sa morom moo ko moom et di nga xamee tamit aussi li nga xamante ne ñun ñëpp ñun ñoo ko bokk. c'est vrai voilà man euh, je pense que yi ñoom wax nañu lépp ah mais duma si sore ah euh, fi may ñëw peut-être moom mooy fi nga xam ni moom mooy. Euh, damay wax environnement bi dafay déterminer l'individu mm-hmm. tey rappeur bi bi bi dëkk Cap si wala wala temps suñu ko mënee wax noonu ak ki dëkk banlieue tey bu ñuy rappee à l'époque c'était comme ça ñi nekk si banlieue bi ñoo doon gën a ñoo doon ñoo doon a quoi cest dire et puis c'était normal man dama ko doon wax dama lu normal la parce que kooku peut-être léegi sax euh, xaw na temps yi xaw na changé tuuti kooku moo doon jógee mu euh, nawet mooy jot moom mooy inondé nawet mooy jot néegam mooy sànn mooy bëgg dem dakaar euh, carapé bi dagg-daggee ni ko buntu Pikine laa yam ñëw ni ko Padois laa yam mu jël trois oto pour pour àgg Dakar donc suy suy suy suy kaas tey du xool ni da nga war a wax man tey jii su ma war a wax ba déet euh, euh, books am na manière bu ma koy waxee déet du ko vexé mais kooku déet quoi parce que dafa dafa dafa métti si moom dafa kii bokkul ak ki nga xam tey dafa yeewu peut-être euh, fii du gom lépp nga ci oto oto lay day day taal oto papam wala am na oto ay oto yu nekk si këram ak yooyu bokkul ça environnement dafa doon déterminé tey ba xam tey ji peut-être ki nekk si banlieue bi bu doon bu doon def la plupart ñoo doon ëpp lu ñuy clash sax ñi nga xam ñoo nekkoon bon si si si si ville bi wala dans les grandes villes wala si ville bi. lenn lenn système dafa am mooy euh, hip bi dafa màgg parce que ñi ko ñi ko ŋànkoon c'est-à-dire euh, euh, je dirais que instant boobu su mbaxuloo bi la woon quoi tout ñëpp a ngi si woon ku nekk yaa ngi doon mm, marqué sa benn empreinte bëgg bëgg génn si si biir si biti teg benn benn par exemple benn groupe ñaar ñett boo gis rek teg nañu beneen crew parce que dañ ko gëmoon moom lañ doon dund moom lu yëpp mais tey jii ñu bare bàyyi nañu. mais ñi si nekk ba léegi gëm ko dañu commencé nag am mat euh, enfin mature tey su ma nee mature mooy que ni je dirais pas si texte bi rek wala si ni ñu koy ni ñuy rappee mais même musicalement comme li kii di euh, kii di kaas léegi mais ñoom li ñu changé changé changé li ñu musical musical musical si bitu hip hop lañ ko teg sa à dire tey ji euh, par exemple jógu fi boobu ngay wax noonu tey mën nga koo mixé ak sa son Tupac mën nga ko mixé son bu euh, Booba wala keneen ak keneen parce que si bitu ba tey bit bi mi ngi fa tey boo xoolee par exemple kër gi seen seen grand théâtre même chose je dis ni orchestre la teg mais seen DJ mi ngi fa ñu ngi teg si si bitu hip ñu teg lépp donc pour mën a nekk à l'aise si li ñuy def mais dañuy sóoraale tey jii ki nga xam ne peut-être bëgg na musique euh, euh, bëgg na chorale ki nga xam bëgg na tey par exemple beneen musique par euh, exemple muy muy rhythmic blues wala leneen li nga xam tey ji mën nañ ko boole loolu mooy maturité bi loolu mooy li ñu indi mooy plus bi nga xam dañ ko amaat te li leen ko may aussi tamit moom mooy euh, le fait ñu xam ce qui se passe dans le monde mm-hmm. cest bu fekkoon dañu nekkoon suñu coin rek peut-être nañu toujours ñu nekk si gëlëm boobu nii lii dafa war metti dafa war a dafa war a kii tey ji euh, si forme musique bi nga nga nga respecté toujours euh, norme hip hop bi mais nga changé musicalement def si say instrument euh, traditionnel def si tey par exemple li nga xam yow di ko sentir pour mën a sa message mën a jàll parce que pour da ngay message am na ñoo xam tey bu leen teg teg teg doon sonal duñ daawuñu dégg kas wax na ko am na paa nga wala ñi nga xam tey boo na waxee ñun rappeur dañuy saaga wala musique bi daf leen tànqaal ak yooyu parce que c'était neex dañoo xool rek naka la ñuy rappel si kii bi nu mu gën a méttee gën a gën a mais actuellement sérieusement ku nekk mën na déglu déglu rap galsen rap sénégalais donc parce que teg nañ ko léegi ñu ngi commencé vraiment di ko mu commencé musical mais texte yi tamit ñu ngi koy gën a soigné ko à l'aide également des animateurs parce que bu njëkk animateurs itam daawuñu segg ah ñu doon segg wala ñu doon segg barewuñu tuuti lañu woon lépp doon jàll donc lépp doon jàll ba classé classé rapport yi si benn kii mais man maintenant sérieusement je chapeau mais nag léegi euh, euh, nag clash yow daf daf lay bu génnee daf lay déranger du la déranger man je me dis que ni lépp lu si mën def rek na sincère quoi c'est-à-dire man pour man euh, comme ni ko Kalzu waxee mën ngay clash sax bañ a saaga mën ngay clash ba te te te respecter les normes mais jox respect peace ak peace and love boobu respect boobu respect mooy sa prochain ki nga xam yéen a bokk li ngeen di def Eh, bi bu Bouba waxee eh, defe naa ni je dirais pas ñëpp mënuñu nangu rek ñëpp mënuñu ànd sax mais jàpp naa ne rab eh, rap galsen yëpp wala hip hop hip hopeur yëpp jàpp naa ne yëngu nañu am na lu lu yeewu si ñoom <laughs> donc solidarité bi feeñ na foofu même bu fekkee ni am na ñu doon jubilé ñu ah, kontaan non moom du ñàkk du ñàkk ah, nañu doon jubilé di yuuxu di en tout cas man li ma mën a wax moom mooy que ni mm-hmm. hip hop bi yow yaa ngi wax dara mais daara ji yàgg na cartonné yàgg nañ def si si pop yóbbu moom moom la ñu yóbbu donc moom la ñu mos a public boobu la ñu mos a am donc pour pour pour comme comme PBS comme Pure Voice donc je pense que ñooñu sax ñoo tax sax ñoom tey ñoom boog sa wala keneen ak keneen di ñafe pour mun a am lool parce que au moins ñoom dañ dañ yoon bi sur le plan africain et sur le plan international li des nag moom mooy li may wax ne Sénégal c'est un petit pays un pays sous-développé waxoon naa ko fi bu ñu bëggee nag te ni ok dañuy concurrencer l'américain wala ki a xam te ji dafa am benn label bu mag wala benn benn industrie bi nga xam moo nekk derrière loolu y aura toujours problème je pense que ñoom dañu liggéey et avancer lentement et sûrement et peut-être certainement kii dafa dafa euh, euh, kas dafa lim Youssou Ndour Baaba Maal ak euh, ak kii mais yaay ay Cheikh Lo am nañ tey ay Touré y'en a d'autres yi nga xam vraiment autant de par exemple Touré Kunda y a également Thiat comment dirais-je le groupe de, de la Padoa donc bare na ñoo am ñi vraiment voilà Ndiaye El Hadj également gars ñu ngi koy ñu ngi génn Sénégal daal ñu ngi génn musique sénégalaise mi ngi génn pour ne pas dire le hip hop waaw mais foog ñu foog ñu ñu def quand Euh, ndax ñi ci génn ñëpp di jël bu wax dëgg rek neexee defuñu li nga xamante ne moom lañ ñuy jox wala ñun lañu respecté eh, wul ñun ñi fi eh, ne eh, xëy na ñun lañu respecté wul El Hadj ngeen mi ngeen langaam woon ci wala mi ngeen laxasu ci ginnaawam vraiment bu bu doon fii la ne di fi def yiñ fiy def xëy na euh, du am la mu am na américain yi dañ ko njëkkee xam nga ko njëkkee uh-huh. tey jii au temps de présenter yooyu mm. dañ doon def dama jot a di ñu doon def arène aux États-Unis dañ wax ni ñoom dañu doon jaay ak équivalent seen seen CD 12000 francs CFA. ñu doon def hardcore cest à hip hop li ñuy wax hardcore dañu doon sax presque maye seen CD wala ñu koy jaay ak équivalent 4000 francs pour pour ah. pour casse rek pour pour daaneel rek ñi xam dañuy def dañuy def arène bi mais mais finalement xam di def victoire ak ñoom c'est-à-dire loolu moom moo am léegi tey jii mm. je pense que ni affaire musique musique la quoi da nga ko war a yëg da nga ko war a da nga ko dafa am na lu mu war dafa war a neex quoi musique amul frontière ah musique la waaw musique la voilà Kals euh, ñu ngi may ñu ngi may xamal ni euh, temps bi vraiment xoj nañu maa lay bàyyi nga euh, jaa jëfal ñi nga xamante ni ñoom ñoo lay seetaan di rafetlu encore une fois personnellement sa teewaay sur notre euh, euh, plateau parce que c'était pas évident quand merci beaucoup déjà ci invitation bi ma leen di remercier et puis je peut-être may préciser une chose que je donnais juste mon avis également. Mm-hmm. ak l'expérience bi nga xam ne am naa ko. Mm-hmm. et que man ça m'a fait plaisir de discuter sur le hip-hop parce que on vit tous les jours ci hip-hop la ñuy dund euh, hormis suñu activité yeneen ah, c'est amour la passion la merci beaucoup et puis euh, di leen encourager parce que je suis tout le temps li ngeen di def et puis c'est toujours un plaisir de partager ku ci mel ni Books ak Mahou ci liggéey bi ngeen di def donc maa ngi leen di gërëm bu baax et puis di remercier euh, Nafi également de choix bi mu porté ci man pour ma ñëw joxe sama xalaat voilà Seynabou di di leen nuyu ñoom ñëpp Kalz ah, euh, bi booy maa ngi koy nuyu bu baax nekk fii ci kër gi Sol ji Pastefeur maa ngi lay nuyu di di nuyu képp kuy animateur El Hadj Sol ji El Hadj bi waa képp kuy animateur bu hip hop fii ci réew mi maa ngi lay nuyu ñoom euh, man nuyu moo ko sax maa ngi kan la moom ta di nuyu ak kanaat Karim xum Karim sama xarit. xuxum quelque chose xuxum fàq. voilà et àdduna seen ba noonu baax na. d'accord noonu rafet na. Mm-hmm. Euh, Dieye ñu.